wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin sayidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa saxbihi wa xadimih wa man saara ala hadiyihi wastanna bi sunnatihi ila yowmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi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 ñu xam ne xew xew xew yi nga xam ne moo xew ci àdduna te réew mi di ab xaaj ci àdduna ci sunu boroom rekk la bàyyi ko sunu boroom bu ko jaam ñi tooñee mooy ay ndigalam di jëf li mu tere ba jëmmi jamono dana yëglu te suy yëglu mën na koo jaare ci loo xam ne day jommal doomu aadama ndaxte wama yaalamu junud junuud rabbika illa waaye wama hiya illa dikra lil bashar kon yi nga xam ne moo xew ci àdduna sunu boroom mooy yëglu di wane boppam di fàttali boppam ndaxte tooñ yi ñu yi ñu koy tooñ ci biir àdduna ak safaan yi nga xam ne moom la ñuy def ak njombe ci biir àdduna xel mënu koo xalaat yàlla nag baaxe na réewi lislaam yi te sunu réew mi di réewum lislaam am na njombe ak safaan yoo xam ne xamuñu ko dañu koy dégg te am na sax ñoo xam ne duñu ko dégg su ko defee sunu boroom nag suy wane meram su wàccee du yem ci ña ko tooñ rek wala ñu jëf safaan rekk waaye day laawaale ka nga xam ne yoonam nekku ca wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa waalamu anna allaha shadidul yàlla suy wàccee mbugalam du ca seet ka tooñ ak ka tooñul du seet ka gëm ak ka weddi da koy wàcce rek mu tasaaroo waaye bu tasaaroo nag yow mi nga xam ne danga tënku ci lislaam na nga xam ne lépp loo lu la ca gaar ab nattu rekk la te ku ca ñàkk sa bakkan dafa shahid imaam buxaari nee na soxna aïchatu radiallahu anha mos naa laaj ku tedd ka alayhi salaatu wasalaam mbas mu ne ko innahu kaana adaaban yabcasuhu llahu ala man yashaa fa jacalahu raxmatan lilmuminin fa laysa min abdin yaqacu yaqacu attaacuun fa yamkusu fi baladihi saabira yaclamu annahu lan yusibahu ila ma kataba allahu lah ila illa kaana lahu mislu ajri shahid da ko laaj mbas mu ne ko mbir la mu suñ borom di wàcc muy mbugal waaye ñi gëm yàlla nañu xam ne yërmaande la ci ñoom ndax ku mu ci dal nga toog fa nga dëkk muñ ko xam ne lépp lu la dal yàlla nee na danga nga am yoolub shahid moo tax mbas yàgg naa am ci àdduna rawatina ci réewi lislaam mbas mu siiw ma ñu bari xam muy am waas ci atum fukk ci gàddaay xam ngeen ne ba mu amee la ca wàccub liggéey ci ay saxaaba mbooloo lañu ku mel ne abu abu ubayda aminu hadihi l umma ak muaad ibnu jabal ak yazid ibnu abi sufyan ak shurahbil ibnu xasana ak alfadl ibnu abbas ak ñeneen ak ñeneen muy mbooloo moo xam ne wàcc nañ ca liggéey ca mbas moomee ak nag yeneen mbas yu xew ginnaaw bi nañu xam ne ay nit daanañu tawat di faatu ci kanam rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ay nit ñu tawat di faatu ci kanam cheikhuna ahmadul xadim lu mel nii nag su amee lan mooy sunu taxawaay sunu taxawaay la ca jiitu mooy dellu ci yàlla delloo ko ca yàlla te xam ne lu am sunu boroom moo ko dogal ci man-manam ak coobareem ak kàttanam te nañu xam ne nit ki lu dal muntoonoo jaas qul lan yusibanaa illaa ma kataballaahu lana moom la ku baax ki di wax naan lépp lu dal muntoonoo jaas waaye lépp lu nu moy itam jaas wa kullu ma asaab asaabanaa lam yakuni yuridu an yuxti'anaa fi zamani wa kullu ma axta'anaa lam takuni yuridu an yusiibanaa min mihani kon nit ki day xam ne lu am yàlla su ko dalee muntoon a jaas su ko mooyee tam muntoon a jaas su ko defee nag la ko war gannaaw ba mu delloo yàlla la ma moom muy lu ci yàlla mooy day fegu balaa faju di ñëw ndax fegu moo gën a yomb faju fegu nag bokk na ci nga bañ a jaxasoog ñamu dal bañ a dem fa mu xew ndaxte ku tedd ka mos naa wax alayhi ne boo gisee ku yor jàngoro juy wàlle na nga ko daw ni ngay dawe gaynde firra min al majzumi firaaraka min al asad alquran wax na ne bu leen xaru te am na loo xam ne jëf ko dey nuru xaru wala tulqu bi aydikum ila tahluka loolu nag soo koy def du caa génn da ngay daw dogalub yàlla déedéet dangay sabablu ndax yàlla moo santaane ngay daw ab dogalam di wuti ab dogalam lépp loo xam ne soo ca tàbbee lor fekk la ca danga koy daw soo ko dawee fooy jëm da ngay daw jëm ci lépp loo xam ne boo ca tàbbee mucc fekk la ca su boobaa yaa ngi daw dogalub yàlla jëm ci dogalub yàlla li annahu amara bil firaari min sababil halaaki wa ibaadahu li sababi salaama fajtanibanna mujibal malaama wa huwa firaarun yaa axi min qadari rabbil wara li mislihi bil xadari kon soo dee dawub safaan jëm ca luy tax a mucc yaa ngi daw dogalub yàlla jëm ca dogalub yàlla kon dangay ngay wakkiirlu ci sab xol loola mooy xaqiiqa waaye dangay sabab sabablu ci li feeñ ci bitti loola mooy sharia fa zahiran takassab imtisaala wa baatinan istaslim ittikaala fasiq bihi dahra waqif bilbaabi fa innahu musabibu asbaabi fasiq bihi dahra waqif bilbaabi liljamci bayna alsharci walxaqiqa fa huwa istiqaamatu lfata xaqiqa kon yaar yooyu soo leen boolee yaa ngi tënku ci sharia ak xaqiqa kon nag boroom xam-xam yi dañoo wax ne su xewee ci barab bu fa kenn tàbbi ñamu dal xew fa fa bu ñu génn ndax nit wërta loru wërta lore la darara wala diraara nit du lor boppam waaye du lor mbokkam ci diineem du ko lor ci yaramam du ko lor ci alalam du ko lor ci xelam du ko lor ci dara da ngay sàmm sa bopp ñoŋal sa bopp sàmmal nit ñi seen bopp ñoŋal leen seen bopp su ko defee ñi nga xam ne nag wàllu saytu ak faj mooy seen mbir lu ñu santaane mëtt bañ a def ndax lii ñuy santaane bëgg rek nit ñi mucc bu ñu ne na ngeen wut ay masque bëgg nit nit ñi mucc ku ko munta jëfandikoo mën ngaa jëfandikoo kaala bu ñu nee nañu dàndante bëgg rek ñu mucc bu ñu nee dem beeg dikk bi nañu ko wàññi ndare lu munta ñàkk bëgg ñu mucc buñ ne kuy yëg ci sa yaram loo gisutoon bëgg rek ñu mucc waaye la jiitu lépp nag mooy nañu gën a set nañu gën a set ndax set jaamu yàlla la yàlla moo ko santaane jaamu yàlla koy def faw nga set booy julli faaw danga nga laab booy jàng alquran faaw da nga laab booy tàbbi ci jumaa faw danga nga laab booy wër kaaba ga faaw da laab looy def rek lu fullawu ci lislaam danga nga laab yaa ayuha alladina amanu ida qumtum ila lsalaati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsaxuu bi ru'uusikum wa arjulakum ila alkaabayn wa in kuntum junuban fattaharu ak inna allah yuxibu altawaabina wa yuxibu almutatahirin ak wa siyaabaka fatahir ak altuhuuru chatrul iman kon lislaam lislaam li mu santaane moo di dañoo war a set ndax nit ki bu setee mën naa mucc mos naa wax moom ku tedd ka alayhi salaatu wasalaam ne waaw nit su amee ak dex ci buntu këram wala piscine ci buntu ci biir këram ci jamono ji bis bu yàlla sàkk mu sangu ca juróomi yoon ndax dana dese tilim ñu ne ko déedéet mënta dese tilim mu ne leen julli noonu la mel sunu boroom da ci fóot nit ki ba mu set te saa sooy julli dangay yeesal sam njàpp kon kay da nga mën a da nga mën a set te boo seetee da nga mën a mucc kon nit ki su wakkirloo ci yàlla gëm yàlla sabablu muy set jëfandikoo li ñu santaane muy dàndante kaalawoo wala takk mask toog benn barab ndare lu munta ñàkk loolu soo koy def na nga xam ne dangay sabablu mucc te sabablu sabablu mucc yàlla moo ko santaane ndax soo xiifee da ngay sabablu ba regg ndaw ko ndaa yi noonu lañuy def soo maree da ngay sabablu ba màndi bu tàngee dangay sabablu ba nekk fu sedd bu seddee da ngay sabablu ba nekk fu nugg nugg kon nag su mbas xewee nanga sabablu ndax ndax nga mën a mucc أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول على الصلاه ki dafay sabablu ndax mu mucc ndax sunu boroom dafa teg ay mbiram ci ay sabab lu mën a doon danga koy sabablu door caa mën a jot li annahu rabata bil asbaabi afaalahu daban ala sawaabi wa jacala al asbaaba xiina xasalat abwaaba bi ixkaamin sabat wa bacdahu rattaba milkahu ala tilka al cawaaidi taala wa kon nag lépp loo xam ne nee nañ la day tax a mucc na nga xam ne loola sabab la waaye sotti moom yàlla moo ko yor mooy sottal bu lool lépp nag wéyi nanu xam ne lépp lu nu dal noo ko teg sunu bopp àdduna si safaan yi nga xam ne dañu ko sàlloo di tooñ yàlla guddi ak bëccëg ci xeeti tooñ yoo xam ne mag ñu njëkk ñi yi ngay gis alquran di leen tudd di wax seeni ñaawteef ak seeni njombe dem nañ ba àgg ci jamono joo xam ne ñaawteef yi nit ñiy def njombe yi nit ñiy def mag ñu jëkk ña yéefar yu jëkk yi sax mosuñu ko xam moo tax yàlla wax ne lépp loo xam ne gaar na leen ci musiba yéen a yéen a ko teg seen bopp te sax man yàlla topp ma leen su ma leen doon topp kon dama leen di faagaagal rek wa ma asaabakum min musibatin fa bi ma kasabat aydikum wa yaafu an kasir kon nag ana lu nu nu war a def mooy tuubal yàlla nanu dellu ci sunu borom tuubal ko tuub gu sell ndax sunu borom boo ko tuubalee te tuub ga sell day nangu sa tuub jéggal la la nga jëfoon la nga ca ko ak la nga fàtte la nga tey ak la nga teyut wa huwa alladi yaqbalu tawbata an ibaadihi wa yaafu an sayiaati wa yaalamu ma tafaaluun kon nañu tuubal yàlla dellu ci yàlla te dëkk yàlla sunuy loxo di ko ñaan boroom pàkk bii day lu ne ñaan na ko ci dëkk bi ndax bëgg rek nit ñi am jàmm lu ne ñaan na ko ci réew mi ak àdduna si ndax bëgg jullit yi jàmm am jàmm wa najjini rabbi wa ahla daari huna wa fi gadin min al akdaari wa najjini wal muslimiina min bala kooko kon ñaanal na ñépp wal taqi jusmaaniya fi qabril bila yaa man ala an zawjatin wa an walad xut nii wa xut jamii ahli zalbalad wal tasrifan jumlata maa yufsidu an yadi wa an daari sarian xaysu an wala takum mubtaliyan minna ahad dahran bima laysa yutiqu ya samat wa kun muizana min alwabaai wa kulli naazilin min alsamaai wa kulli ma yaduuru fi l ardi wa ma baynahuma yakunu ya rabba sama kon ñaan na lu ne ngir bëgg nit ñi am jàmm waaye jàmm nag dees koy sàkku di ko sabablu li mu ñaanoon ci dëkkam bi muy am ndox euh, euh, euh, ba mu ne wa maskani sallim min al fujjaari ne nag wamnun ala al ahli bi ma in jaari ndox mi mu ñaanoon dañu ko sàkku la ko dala ci Cheikh Moustapha al Karim ba ci sunu sunu jamono jii ku fi nekk rek da nga sabab lu ndox mu walangaan ci dëkk bi kon nag lépp lu mu ñaan rek dañu koy sàkku dañ cay dox wal taxmi daari an il fujuuri wal fisqi wal fi duhuri loolu dañu koy sàkku dañu koy jëf wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayib shurbaha wa dañu koy sàkku dañu koy jëf waj bu laha al xayra min al jihaati as sitti wakfiha an il afaati ku xëy dem ca jaba wuti loo am kon ñaan na ko waaye dañ koy sàkku kon lu mu mën a doon dañ koy sàkku te njabootam ku tedd ga kenn ku ne ci ñoom ñaanoon na ngir bëgg rek ñépp am jàmm xam ngeen ne xasida googe Cheikh Moustapha al Karim defoon banaan wa farij humamal muslimina wa xammahum wa fukka usaarahum wa ajjil lanal bushra ba xasida ga jeex ñaan na ca luy tax nit ñi am jàmm cheikh mohamadul fadil fa min mushtakin faqran wa min mushtakin balan wa min mushtakin diinan wa za minhumoo ahra ñaan na lu ne ndax bëgg nit ñi am jàmm cheikh mohamad cheikh mohamadul bachir fa zaxzih ilahi anhum alhamma wa zuura siwaaka waqad axna waqad axna zamaanu alayhimu fa zaxzih ilahi anhum alhamma wa zuura ku ne ñaan na ci ndax bëgg nit ñi am jàmm kii fi nekk nag bi mbir mi xewee taxaw na ci na mu war a taxawee dafa santaane ñu jàng alquran démb rek moo ci mujj santaane ñu ñaan santaane ñuy sàkk sarax santaane ñuy jàppalante ndax ab jullit léppam day tàmbale ci yàlla yem ci yàlla tubaab yi ñoom pajum médecin rek lañ defee ne mooy saafara jàngoro ji moo tax ñu jommi moo tax ñu saalit waaye bu dee nun lépp dañ koy tàmbalee ci yàlla dellu ci yàlla soññee na neena na julli lu mën a xew lu jàngoro ji law law law nañuy taxawal julli ci jàkka yi ndaxte ku tedd ka alayhi salaatu wasalaam su mosaa tollub diggante day santaane nañ julli kaana ida xasabahu amrun fazia ila salaa ak naan arixna bi salaati yàlla sax nee na wastainu bi sabri wa bu la mbir gaaree dangay ngay muñ te sàlloo julli waaye mu santaane na ñu ñu yor wàllu wér-gi-yaram lépp lu ñu digle nañ ci góor-góorlu kaala nañ koy jëfandikoo masque nañ koy jëfandikoo kem kàttan bañ a joxe loxo buñ ko mënee def moo gën bàyyi ay diggante dàndante buñ ko mënee moo gën di raxasu buñ ko mënee moo gën bàyyi nag mbooloo yi daje te ba mu ko santaane kilifa yi dañoo jëfandikoo lam leen sant ndax nun ñooy deng-deng waaye kilifa yi ñoom xam nañu fa ñu teg seen kilifa kazu rajab màggalug daarul moxti goog sëriñ abdullahi goog sëriñ ma sàmba sëriñ shuaybu laylatul qadri boroom saam ba ci sëriñ abdul ahad ba ci soxna muminatu mbooleem yi fi xew ci diggante bi xam nañu limu mu santaane mooy bàyyi dajaloo moo tax kenn ku nekk danga toog sa kër kay sa kilifa danaan man bu ma kenn seet si ku ñëw doom a gis dañuy tëju ndax tënku ci ndigalul ki nga xam ne moo ne ci kanam mbooloo mi kon nag ñépp nag foofu lañu ñu war a jaar yemu ca ñi tawat ji gaar mu wuutu leen seen njaboot jël ay bernde di ko yóbbu ci hôpital yi fab kër Sëriñ Tuubaa ci héliport teg ci loxol ñiy faj ndax kër sëriñ Touba fu ñuy saafara woo la waaye kenn du fa loro yëkkati kàddoom wax ak réew mépp wax ak bitim réew ndax ñoo ci gën a mettile ndax ki ki ki mbas mi fekk réewam moo tane ki mu fekk bitim réew dimbali nag waa dëkk bi wax ne nañu ko tàmbalee ca sancaan ya junni ak juróom-benn téeméeri saa koy ceeb juróom-ñetti téeméeri saa koy pepp fekkoon na mu jox daara daara yi juróom-benn téeméeri saa koy ceeb fab nag la mu faboon jox ko waa nguur gi ndax xam xamal leen ne leen yéen la war waaye ku ne war na cee def loxoom kon nag nun ñi nga xam ne nooy waa réew mi rawatina waa Touba war nañoo gën a laxasaayu tënku ci ndigalul sunu kilifa bari na ñoo xam dañoo wàcc bàyyi seen loxo mboolem lu ñuy tere ñu ngi koy jëfandikoo te kat su lawee du bàyyi kenn kon nag. ki la ne sangul sabtaal rek la bëgg kon nag yi nga xam ne moo xew ci réew mi xewoon ci dëkk bi te muy lu kenn rafetlu wut nañu fexe ba na jëkk waaye na mujj ndaxte kilifteef rek lañu xam kilifteef rek lañu mos di tënku ba yoon wi di yoon wi ba nëgëni kon nag yi xewoon ci dëkk bi wërta am wërta am fenn sax waaye fii da cee raw xam ngeen ne sëriñ Abdul Ahad ba ko laaj ne ko fu Tuubaa yem dañu bëgg xam fu Tuubaa yem ba mu teree ya mu tere dana leen fu ab taalibe di yeewoo de jàpp naa ne ci Tuubaa la bokk kon nag sëñ bi li mu santaane muy yar ak teggiin ak dellu ci yàlla wakkiitlu ci yàlla tuubal yàlla ñaan yàlla ñëpp la ko sant waaye yar ak teggiin tam ñëpp la ko sant yàlla na ko yàlla gën a sàmm gën koo aar gën a guddal aw ba lépp lu mu yéene mu yeggale ko ci sagoom te nu ànd ko ak moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.